ok alhamdulilah ñu ngi war a jël tey baabu shahaadaat baabu shahaadaat ci kitaabul qadaa baabu shahaadaat inna alhamdulilah nahmaduhu wa nasta'iinuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ñu ngi sant suñu boroom di dajawaat ci ab néegam di fas yéene jàng lam jaarale woon ci yonentam sallallahu alayhi wa sallam muy sunnaam sunna boobu nga xam ne ki nga xam ne mooy alxaafiz ibnu hajar rahimahullah tënkal na ca ab jullit ci téeréem bi mu tuddee bulughul maram loo xam ne boo ko matalee da nga ca xam fooy jaar ba am gërëmal yàlla kon ñu ngi nekk tey fukki fan ci weeru rabiul awal ci atum 1440 mu tombeeg 18 novembre ci 2018 incha allah comme niñ ko waxee ñu war a jël sunu buntu bu jëkk di baabu shahadat الباب الأول باب الشهادات عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء هو الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما قال ألا عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيه مسلما متفق عليه وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا قائلة ولا في غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت رواه أحمد وأبو داود وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية رواه أبو داود وابن ماجه
kon mbokk ci xadis yi ñu jot a jël bunt bi mooy baabu shahaadaat bunt bay jàngale ak seede naka lay war a amee ci lislaam xadis bi ci jiitu an zayd ibn xaalid aljuhani radiyallahu anhu anna nabiya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qaal ala uxbirukum bi xayri shuhada yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ma ndax du ngeen kaay ma xabaare leen ci ki gën ci ñiy seede huwa alladi yati bi shahadati qabla an yusalaha mooy kay indi ay seede jiitu ñu ko kay laaj rawahu muslim mbokk julit suñu diine ji bàyyiwul dara bokk na it ci loo xam ne dana indi ak jàmm ci nit ñi mooy li ñuy tuddee ay témoins mooy tax ba ay jullit bu ñu xëccoo ña témoigné woon mbir mi mën a doon ñuy bokk te te ñuy atte témoignage boobu moom lañ doon jàng léegi ci timis suñu borom mu ne wa aqimu shahadata lillah na ngeen taxaw témoignage te yàlla subhanahu wa taala rek a tax loolu moo tax ba rasul sallallahu alayhi wasallam ni xanaa du ngeen kaay ma xabaare leen yaakaar naa ñiy topp bayaan yi mbokk bi abu babacar di dugal ci groupe yi ñi ngi toll ci muy fàttali waxtaan yi ñu doon def fii gannaaw timis ca mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci njàngaleem ni mu daan pose pose question ba pare répondre ko toogoog mbooloo mi ba mujj rek mu ne waaw xanaa du ngeen kaay ma wax leen ci ke gën ci ñuy seede la chaque ne ñoom ñëpp dañ ne ko ak ay yom yàlla yónni mu ne mooy ki nga xam ne heure boo amee ak seede boo xam ni dëgg la mu gis ñuy atte seede googee dana ñëw joxe ko ca yàlla subhanahu wa taala rek moo tax mu koy joxe loolu mbokk jullit la suñu borom yàlla sàkku ci ñun amma bu ñu xoolee xadisu ñaareel bi wa an imran ibn xusayn radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sal allahu alayhi wa alihi wa sallam inna xayrakum qarni mu ne ñi gën ci yéen mooy samag maas summa lazina yalunahum gannaaw ba ña nga xam ne ñoo sus ci ñoom summa alladina yalunahum gannaaw ba ñu sus ci ñoom summa yakunu qawmun yashhaduuna wala yustashhaduun gannaaw ba dana am xeet buy ñëw di seede ca kenn seede loowuleen wa yaxuunuuna wala yutamanuun ay workat la ñuy doon kenn du leen wóolu wa yanziruuna wala yuufuun dañuy nekk di nisër ca duñ ko matal wa yazharu fihimu siman dana feeñ ci ñoom li di graisse muttafaqun alayhi mbokk xadis bi nekk na benn xadis bu ñëw ci sunu jamono bi ñuy waxe suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam dane ñi gën ci xeetam nee na mooy qarni qarn lu bari ci borom xam-xam yi lañ ko firi mooy un siècle téeméeri at kon bu doon ci loolu lañ ko firee dañ naan téeméeri at gannaaw téeméeri at yonent bi dund ak i saxaaba ñaareel ba téeméeri at ba ca topp ñetti téeméeri at ya ca topp ca mooy trois siècles yi ñëw gannaaw bi yàlla yónnee yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñooy siècle yi gën doonte ne am nañu ko firee ak maas masalan su boobaa kon dañ naan qarni mooy maasuk sahaaba yi summa lazina yalunahum attabiin summa lazina yalunahum attabii tabiin ca bu boobaa it la ko borom xam-xam di firi dañ naan ak maas ak jàllam mooy buñ demee ba la ci ëpp faatu masalan jamono biñ demee ba gis ne sahaaba yi da la ci ëppoon dem nañu kon dañ naan maasuk sahaaba ga dem na taabiin yi ñëw muy seeni doom suñ demee ba ñi gisoon saxaaba yi dund ak ñoom dem nañ ba ci la ëpp dem nañu dañ naan kon maas googu dem na ila axiri almuhim ci lu gën a neex a comprendre rek mën nañu jël ñetti siècle yu njëkk yi yeneen ci bàyyi sam nee na ñii ñooy ñi gën ci xeet bi loolu moo tax ba mbokk ñooñu lépp lu ñu dul woon jaamoo yàlla ndax jullit war na koo jaamoo yàlla te déet loolu mooy mbir bi su ko defee léeg-léeg benn polémique am ci benn mbir ñii ne baax na ñii ne baaxul waaw léegi bokk na rek yow mi borom xel ñu laaj la nga xam ne nii moom la Cheikh Nasruddin Albani doon laaj waajam doon waxal waaw mbir mi tey teqali jurit nii mooy problème mu gàmmo mi ngi nii mu ne ko waaw ndax léegi gàmmo jaamu yàlla la wala du jaamu yàlla ah léegi lan la waa ji mën a wax di dana jaamu yàlla la d'accord jaamu yàlla la waaw léegi yonent bi xamoon na ko am xamu ko doo mën a wax lu dul yonent bi xam na ko ndax jàpp naa ne jullit du mën a wax ne jaamu yàlla gi ne yonent bi xamu ko d'accord troisième question bi yonent bi xamee ni lii jaamu yàlla ko baax la jàngaloon na ko sahaaba yi am da koo nëbboon gars yi su boobaa looy tontu imma nga ne xamoon na ne jaamu yàlla ko baax la waaye du koo nëbb te suñu borom mu ne wa ma ala rasul ila al balaaxul mubin yonent dara ko lu dul jottali ca ku dem di ko ziyaare da ngay gis bokk na sax nga naan xat ballaxta balaaxul mubin taxaw na sahaaba yi hël ballaxtu ñu ne ko naam kon ñu xam ne loolu dañuy dàqu kon li ci des mooy ñu ne ah kay jàngaloon na ko saxaaba yi waaw léegi yonent bi toog nag saxaaba yi mu ne leen lii di guddi gàmm guddi gi ma juddoo ngëneel gu rëy mi ngi ci ngërëmal yàlla mi ngi ci yonent bi wax ko saxaaba yi ba pare Aboubacar nekk fi ba jóge fi kenn mus sa gàmmo xulafaa u rashidun kenn musul gàmmo seen saxaaba yi nekk fi ba seen siècle jeex kenn musul gàmmo taabi'i na ñëw deuxième siècle bi ba jeex musuñoo gàmmu ñetteelu siècle bi ñëw ba jeex musuñoo gàmmu ca loolu mboolem mi historien dëppoo nañ ne ñetti siècle yi topp ci ginnaaw yonent bi gàmmu amut waaw gars yi lii kon ndax mënees na koo layal donc lay ba moom amul ku koy layal da nga koy layal ci say xalaat mais kenn du ko layal ci diine mi ngi noonu ñu ngi ci wax koo xam ne muy suñu mbokk Abdoul Aziz Touré na am ijtihaadam la mu ko may fi mu toll donte ne nee na ba baa ñu koy mën a ba ijtihaadam may na ko seen dëkk ñu ngi gàmmoo waaye wax na wax bu leer bu xam ni bépp jullit war na ko dégg bu ko jullit ji déggoon rek jàmm dana am suñu diggante ndax tey yegg nañ ci xaal boo xam ne ñi nga xam ne du ñu gàmmoo nit ñi dañoo xeeb seen diine am na kilifa gu rëy ci Sénégal dem na ba ne administration Arabie Saoudite yépp ay yéeféer lañu yaa ngi dégg ndax joxuñu yonent bi gëdd dem na sax ba waat bi léegi su ma fa demoon wax leen ko ila axir loolu kon fitna lay jur waaye nag mbokk jurit jarul jur fitna la nga xamee ne daal xamal ne ñi gën ci xeet bi mooy li yonent bi wax qarni sama maas sama lazina yalunhum suma lazina yalunhum mu ne gannaaw bu ñetti siècle yi passé dana am mbooloo muy ñëw di seede ca kenn seede loowu leen loolee la ko borom xam-xam yi firee mooy shahadatu zuur jàng nañ xadis bi njëkk a jàng xayru shuhada mooy ka ñëw di seede ca kenn laaju ko sax kon pourquoi yonent bi fii mu ne di leen ŋàññi dañuy seede kenn seede loowu leen ay la ñuy seede du seede bu jub fekke wuñu la ñuy seede bañ leen di seedaloo la yastashhaduun rasul sallallahu alayhi wasallam teg ci it ne ay workat la ñuy doon ca kenn du leen wóolu ca loolu itamit mbokk yonente bi alei salaam nee na bala àdduna tukki da nga dégg nit ñi di waxante naan giir sàngam day am na fa ko wóor doomu aadama yi dootoo gisati ko wóor ca mbokk loolu nekk benn fitna bu rëy rëy rëy boo xamee ne nii ku xam dëgg-dëgg li ñuy dund tey nga xam ni lu doy waar la di nga noonu ah mas naa wax ak benn commerçant mu ne ma man day jeexal naa sama famille jeexal sama famille soxna ca mooy ndaw boo yaakaar ba iddi ko balaa yàgg rek mu def la loo xam ne doo ko mën a nettali ñu ngi noonu bari na ay mbokk yi ne États-Unis wala Italie imam ñun di dañ bëggoon investir foofu ndax gisoo xale bu wóor bu ñu mën a jox dama ko hé sëñ bi loolu man du ma ci dugg du ma ci dugguloo kenn yaa ngi dégg et pourtant day loolu mën na dox mën na tax réew mu dox mais loolu mooy mbokk fitna yi axiru zaman ñu bëri ci ñoom koo ci dénk mu jàpp da nga koo may loolu nag mi ngi noonu dañuy di yàqu noonu dañuy nekk di di wor kenn du leen wóolu rasul sallallahu alayhi wasallam teg ci ne dañuy nekk di ni sër ci duñ ko matal ni sër ba imaam yi jaamu yàlla ko ñu wax seen diggante ak seen boroom wala lu ñu diggante ak seeni moroom ca loolu ca mandarga naafiq la bokk na mandarga naafiq wa ida waada axlaf lu mu digle war ko loolu mu ne luy bari la axiru zaman la ca mujj nag mu ne seen mandarga mooy graisse day feeñ ci ñoom mooy da ngay gis ñu bari ci ñoom dañuy doon ñoo xam ne ah dañuy doon ñu rëy rëy rëy ca it fam ko doon waxee ci dëkk naar yi bokk da ngay gis lu ci bëri ci ñoom ni leen yàlla nattoo ci alal daanaka ñoom américains yi ngay ko ngay méngale ci rëyaay boobu ca la chaque ne képp koo xam ne da ngaa toppatoo sa yaram lu la neex lekk di bànneexu ba nekk am mbuxri loolu dana jafe mu ànd ak jaamu yàlla bu sell loolu dana ànd defe lool mu ànd ak jaamu yàlla bu sell loolu kon mbokk mooy la nga xam ni rasul sallallahu alayhi wasallam waxoon na ko ci hadis boobu buñ jëlee hadis bi ci topp wan abdullah ibnu umar radiyallahu anhuma qaal قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة du dag du du kenn du wéyal ay du ñu yoonal mukk seed ak ab warkat bu góor wala bu jigéen wala zi xamrin ala axihi ak seeda koo xam ne ak noonoo da koo am digganteem ak mbokkam ñaar ñoo xam ne dañoo yëg ci ñoom noonoo ko dox seen diggante kenn ci ñoom du mat seeda ca kaw moroomam wala tajuuzu shahadatu lqaanii li ahli lbayt du nekkit di lu ñuy yoonal seeda koo xam ne nii dafay liggéeyal waa kër muy xaadim koo xam ne dafay nekk ci kër di leen liggéeyal problème bu waa kër ga am moom duñ ko doy muy nekk di seede kon yii yépp mbokk bu ñu xoolee li jëkk mooy waa ji wor mbokk lislaam képp kuñ dem ba xam ne yow workat nga heure bu ñuy dem di ut ay seede duñ la ca boole masalan waa ji kat gis nañu ne dóoral na nit comme na ko yàlla waxee ca suratu nuur ki nga xam ne dafa ñëw dóoral benn waay njaaloo ci indiwul ñeenti seede suñu borom mu ne ko mel ni wala taqbalu lahum shahadatan abada bu leen nangoote seen seede mukk képp koo xam ne gis nañu ne lekk na alali jàmbur def na ak jalgati ku mel ni duñ ko nangu ci seede góorub jigéen noonoo it naka noonu ndax doomu aadama en général boo noonu ak moom pour nga seede ci moom loo xam ne intérêt la luy jafe la gannaaw ba it aji jegeñaale ku mel ni ay mid ay ay mbindaan yaag boy ya ca xam nga loolu it ca la ñuy boole la nga xam ne mooy sa doom yu demee noonu bu ñu demee ba wut ay seede ñooñu kenn du leen nangul ci seede ñuy fàttali benn qissa ki nga xam ne mooy Shurayh al-Qaadi mu siiw ci lislaam Ali ibn Abi Talib mooy amirul mu'minin benn yahud sàcc benn mbubb bi muy sol pour guerre Aliou ne kii sama mbubb la mu ne ko déedéet sama mbubb la ñu ne nañ dem ci àttekat bi ci Aliou mooy amirul mu'minin bi ñuy ci àttekat bi Shurayh na ko waaw amirul mu'minin luy sa seede ci ne mbubb bi yaa ko moom Aliou wax benn waay daal di ne ak Xasan sama doom bi mu ne ko déet da ngay wut keneen mais sa doom moom du la mat seede ah ali na ko ah awma keneen ko ma ko mën a seedaloo mu ne ko ah kon kon dañ koy bàyyi yahud bi yahud bi daal di ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah nag dëgg-dëgg lii muy diine dëgg ak yahud ànd ak amirul muminin ca jal ga ci tooñ ba pare ñu jox ko dëgg mu ne ko attekat bi ali wax ne dëgg maa topp ci gannaaw gile ma mu wadd ma far ko denc ko man mii maa ko maa ko sàcc yaa ngi dégg am mbubbam la mi ngi noonu lii mbokk dañuy gis kon mooy la rasul sallallahu alayhi wasallam wax ci loolu xadis bi mu jàgg it loolu lay firi mu ni laa tajuuzu shahadatu badawin ala saahibi qarya nee na kaw kaw koo xam ne ci kaw kaw la kenn du ko jël témoin ci nga xam ne dañoo dëkk ci capital yi mbokk kaw kaw la shakk ne ak fu mën a doon li suñu borom yàlla wax rek al arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la yaalamu xududa ma anzalallah ala rasul bokk na ñi gën a réere diina mooy kaw kaw bokk na it ñi gën a dëgër mooy kaw kaw léeg nga dem ci kaw gi fekk fa ay wallahi mag ñu mag ñoo xam ne toll nañ ne seen yaay duñu julli duñu woor li ngi noonu ay jeunes yoo xam ne toll nañ seen bàyyi duñu julli duñu woor lu tax loolu mooy diine dafay tumuranke loolu nag la rasul sallallahu alayhi wasallam doon wax ne ñooñu duñ leen jël ay témoins ndax la nga xamee ni noonu la ñu sori diine ak la nga xamee ni lu ëpp ci ñoom fu seen intérêt nekk rek moo fa la ñuy waxee loolu mbokk mooy wàllu gu jëkk googa xam ni jëkk nañ ko jël ci bunt boobu
وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه خطب فقال ان اناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الوحي قد انقطع وانما ناخذكم الان بما ظهر لنا من اعمالكم رواه البخاري وعن ابي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عد شهادة الزور في اكبر الكبائر متفق عليه في حديث طويل وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فاشهد او دع اخرجه ابن عدي باسناد ضعيف وصححه الحاكم فاخطا وعنه رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد اخرجه مسلم وابو داود والنسائي وقال اسناده جيد وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه مثله والترمذي وصححه ابن حبان
wa ala kulli xaal xadis yi nga xam ne moo ci tege wa an omar ibnu alxataab radiallahu anhu jële nañ ci omar annahu xataba fa qaal bis mas mas nañ xutba mu wax ne inna unaasan kaanu yuxazuuna bilwaxyi nit ñi day nekkoon nañ ñu leen di jàppee ci waxyu gu yàlla daan wàcce fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ca jamono yonent bi wa inna al wahya qad inqataa léegi nag wax yi moom dagg na dootul wàcc wa innama naaxuzukum al an léegi nag dañ leen jàppe bi ma zahara lana min amalikum ca la nga xam ne feeñ na ñeel leen ci seeni jëf rawahu al buxaari buxaari solo na ko donc julit gis nañu Omar dafay wax ne e yéen nit ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day ba muy dund léeg-léeg ay mbir daan am nit ñi juyoo ca yàlla wàcce alquran daa di atte nit ñi man nga cee jël bi ci gën a siiw suñu ay Aïcha ba ka naafiq yi tuumaal yi lañ ko tuumaal rasul sallallahu alayhi wa sallam toog na un mois yàlla bàyyi ko ci lënt googu gannaaw bala yàlla wàcce aaya ya nga xam ne moo koy setal mu ne nag léegi nañ xam ne ak wax yu day amatul képp koo xamee ne nii gis nañ ci moom lu safaanoog diine dañ la atte ci loolu mbokk xadis bi nekk xadis bu rëy mooy Omar nee na ak wax yu dagg na ba fi yonent bi jógee ay waaye ndax jullit yi tey gëm nañ ne ba fi yonent bi jógee wax yu amatul déedéet ku nekk jàpp ni ne jibril wàcc na ci moom ku ne jàpp ni ne jibril jox na ko nangam ba Sénégal sax am nañ fi ab yonent bu jigéen boo xam ne nee na ba ma xëyee sama kër di liggéeyi la ma ñaari nit feeñu ay góor yu ànd ki leer kenn ki ne ma man may jibril ki des na ma man may muhammad ñu ne yow yàlla yónni na la nga nekk yonent loolu am na Sénégal gii mbokk jullit waaye mbokk loolu suñuy mbir rekk la Omar ibnul Xattaab mii ñuy nettali ànd naag yonent bi alayhi salaam ànd naag Abu Bakarin Saddiq ñu ne nañ dem seeti waay Ummu Ayman kan mooy Ummu Ayman nekkoon na koo xam ne jaam la bu yaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moomoon keroog bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam di ñàkk yaayam mi ngi àndoon moom ak Ummu Ayman ñu demoon Madina ba ñëwee ci yoon bi nibbisi ca la yaay ji faatu yonent bi alayhi salaam ñu ngi toll ci ay juróom-benni at Ummu Ayman boobu moo ko taxawu taxawaayu yaay mi ngi noonu soaram lu gudd gudd la ci lislaam waaye ala kulli xaal ba yonent bi alayhi salaam jëkk koo faatu bi ko yonent bi alei salaam jëkk koo faatu ñu teg ci ay weer aboubacar ànd ak omar ñu ne nañ dem ziar ziar ji ummu ayman biñ ñëwee toog ak moom rek mu commencé di jooy radiallahu anha aboubacar na ko ay ummu ayman xam nañi rasul salallahu alayhi wa sallam la ne fa moom ca boroomam moo gën li mu bàyyi ci àdduna mu ne wallahi jooyuma demug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li may jooy rek mooy wax yu dootul wàccati ci kaw suuf lii moo may jooyloo aboubacar ak omar ànd ak moom di jooy radiallahu anhu ndax mbokk wax yu googu doon wàcc mooy ñaar fukki at ak ñett suñu borom di jokkale alquran ak di jokkale asamaan ak suuf di jubbanti nit ñi bu ñu jàddee mu jubbanti leen lu ñu yokk mu wàññi guddeeg bëccëg yonent bi salallahu alayhi wa sallam alquran ngi wàcc moom loolee mbokk moo tax ba sahaaba yooyu nekkoon gën ji nit loolu moo tax ba tax ba yow julit bokk ni li ngay gëm ak sahaaba dootul mën a yeme ko dul sahaaba doonte ne ku dul sahaaba mën na def ci diine loo xam ne mat ni junni yoon lu sahaaba def benn sahaabaa ngi nii musul jihaad musul jàngal kenn musul samp dara waaye nag gis na yonent bi gëm ko kenn ci borom xam-xam yaa ngi nii masalan jëlal ko mel ni imaamu Malik imaamu daarul hijra nga xam ne lim jëriñ ci lislaam kenn xamu ko mais ndax dana tax ñu ne Malik ibnu Anas day moo gën sahaaba tel abadan lu tax ndax kii moo gis yonente bi alayhi salaam kii moo fekke bi wax yi di wàcc loolu di période bu màgg bu kawe ci lislaam léegi nag ah yonente bi dem na wax yu dagg na yàlla bàyyi nit ñi ak seen bopp gars yi lan moo xew gannaaw loolu gannaaw ba yonente bi alayhi salaam demee gis nga nit ñi ñii xàll jëm fi ñii xàll jëm fi sos bu nañu sos ko ci biir diina ji ana ku koy weddi loolu moo taxoon soxna su baax soosu di ummu ay man doon jooy waaye nga la waay mbokk jullit xamal ne képp ko gëm ne yàlla wax yu ne beneen jaam gannaaw bi yonent bi faatoo yéeféer la li nga noonu képp ko gëm ne yàlla subhanahu wa taala wàcce na wax yu ci keneen ku dul yonent bi salallahu alayhi wa sallam kooku ab yéeféer la inna al wahya qad inqata wax yu nekk na loo xam ne nii dog na hadis baa ngi noonu rawahul buxaari loolu mbokk mooy di jullit bu nekk war a xam lii kon moom la omar ibnu alxataab wax amma buñ jëlee xadisu ñaareel bi mooy xadisu abi bakra radiallahu anhu an nabia sal allah alih wa sallam annahu adda shahadata zuur min akbar alkabair rasul sal ai sallam day konte na boole na seede fen ci bakkaar yi gën a mag ci bakkaar yi ca mbokk bakkaar benn baaxu ci waaye nag dafa am lu ñuy tuddee kabair muy bakkaar yu mag yi bakkaar yu mag yooyu it am lu ñuy tuddee akbarul kabair ya gën a mag ci bakkaar yooyu rasul salaa sallam toog naa sahaaba yi ba mujj mu ne waaw xanaa du ngeen kaay ma wax leen ala abdulukum ala akbaril kabair du ngeen kaay ma wax leen li gën a mag ci bakkaar yi ñu ne ko ah kay mu wax ci ay waxam bokk na ca la nga xam ne mooy bokkaale ak sa boroom gannaaw ba mu ne uququl walidayni mooy def lu ñaaw jëme seeni waajur ñetteel ba mu ne ala wa shahadatu zuur ala wa qawlu zuur wa shahadatu zuur mooy wax fen ak seede ay fen mbokk seede fen mën na rey nit da ngeen noonu seede fen mën na rey nit tey ji benn waay rey nañ ko fii ñaari nit jóg na ah ñoo ko gis demba moo ko rey attekat bi day rey demba ndax xam ngeen loolu ngeen noonu rey nañ ko fi xamuñu ko rey ñaari julit taxaw na ñun ñoo fekkee demba moo ko rey dañuy rey demba yi ngeen noonu loolu mën na yàq der mën na tuur deret mën na tas ay sëy mën na kii mën na looloo tax rasul sallam ne bokk na li gën a màgg ci fen mooy seede ay ci ci mbusi mooy seede ay fen wallahi am na ay tribunal yoo xam ne ñoo xam ne bu ñu xëyee lu ñu fay wut soo ñëwee ñu ne ndax bëgg nga ku la témoigner loolu mooy seen liggéey tribunal ndax bëgg nga ku la témoigner da nga am sa doom bëgg ay jugement wala da nga am problème mu sëy wala da nga am nangam amoo témoin ñëw nga fay leen ñu ñëw loo bëgg ñu seedeel la ko da nga noonu loolu musiba bu rëy la da nga noonu ala kulli xaal rasul sallallahu alayhi wasallam nag nee na loolu ci kabair yi gën a màgg ci kabair yi ci la bokk seede lu rëy la bokk na lu koy firndeel mooy xadis bi ci topp donte ne borom xam-xam yi am na luñ ca wax an ibnu abbas radiallahu anhuma an nabi salaa sallam qaala li rajul ibnu abbas nee na yonent boo xam ne benn waay tara shams ndax yaa ngi jàkkaarloog jant bi qaala naam qaala ala misli hada fashhad aw da mu ne ko comme ni ngay jàkkaarloog jant bi booy seeda del seeda loolu wala nga bàyyi axrajahu ibnu adi bi sanadin daif wa sahahu alxaakim fa axtaa xadis la boo xam ne nii nee nañ xadis la bu wérul waaye maanaa bi moom wér na ca mooy nit ki buy seede lépp luy sikk sàkk amoo droit di ca seede amoo droit di ca seede bokk ndax xam ngeen seede ci lislaam masalan seede ku ñuy war a rey ci njaaloo xam ngeen seede bi mooy lan mooy man day gis naa leen li ki góor ki yor gis naa ko ci biir li ki jigéen ki yor xam ngeen loolu jafe la de ci jamono Omar am na sañ indi ay gaay benn waay ñeenti nit ñuy seede koo xam ne dañ ko fekk muy njaaloo ñett ñépp taxaw ne ñun gis nañ li waa ji yor ca biir la soxna sa yor ñeenteel bi ñu ne yow nag mu ne ah man daal gis naa waa ji ci kaw kaw soxna si waaye nag loolu foofu la sama seede yam Omar duma ñett ñu jëkk ñi Omar duma ñett ñu jëkk ñi bokk li mooy seede lislaam donc yow mën ngaa wax ne ah kii di Élisabeth day gis naa ko mu ànd ak Paul dugg ci néeg ba ñu ngi noonu dem gis ah yow day sa soxna Jeannette gis naa ko mu ànd ak Jean ña nga dugg ci hôtel tel loolu nga seede loolu nga gis mais foofu la seede na yem fa nga seede mais bul dépassé foofu loolu kon moo tax xadis bi même bu wéerul it maanaa bi mbokk jullit fexeel ba looy seede na la leer naññi ne sa loxo bii juróomi baaraama ci nekk du quatre du six loolu mu doon lu leer amma bu dee xadis bi ci topp wa anhu jële nañ ci ibnu abbas radiallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaal qadaa bi yaminin wa shahid axrajahu muslim wa abu daawud wa nasaa'i wa qaala isnaaduhu jayyid ibnu abbas mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day am na benn waay boo xam ne da koo seydaloo waaw mbokk bi da ko coupé waaw alors yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na benn waay bu ñëw di attewoo ci moom bokk atte lislaam li ci gën a néew mooy ñaari seede ci bépp atte ba mu des wàllu njaaloo wàllu njaaloo moom ñeenti seede ngay seede amma bu dee àqu deret ak alal ñaari seede la ñuy seedaloo bu dee àqu deret góor rekk a koy seede jigéen du ko seede bu dee àqu alal nag bu ñu amul ñaari góor mën nañu am benn góor ak ñaari jigéen amma ci kaa bi waa ji moom benn góor la am bu bu bu koy seedeel àq bi ko waa ji yoral biñ ñëwee yonent bi alei salaam na ko waaw kon léegi waatal ci yàlla ne kii yoral na la àq gannaaw seede bi ñu boole waat gam waat ci yàlla ak seede ba pour man koo jox la nga xam ne nii moom mooy àqam ci loolu amma bu dee ni xadis bi nga xam ne nii moo ci mujj wala mbokk mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu taala anhu misluhu gis nañu ne ku mel ne abu hurayra it lu mel noonu moom la wax ca ca loolu da xam ngeen ne mbokk lu bari ci atte lislaam tamit bu dee ay seede amul la fa sës moom mooy waaji waat waat gaay taxaw place seede masalan benn góor a ngi nii waliyaasu billah ñëw na këram fekk soxnaam ak keneen wala doo soxnaam jur na doom boo xam ne wóor na na juru ko su demee caatekat bi lu muy def amul ay seede suñu borom nekkoon na waat ñeenti waat ñeenti waat yooyu mooy taxaw palaasu ñeenti seede ya maroon a indi soxna si it lan moo ko ciy musal dana waat ñeenti waat mu taxaw palaasu seede ya maroon seede ku góor ko dana ci dolli juróomeel boo xam ne day ñaan rëbbum yàlla wàcc ci moom su dee ne fen na soxna sa dolli si merum yàlla wàcc ci moom su dee ne fen na loolu kon mbokk moo aju ca bunt boobee nga xam ne nii moom la ñu doon jël tey naam mën nañ jël ci beneen bunt bi quelque xadis rek
الباب الثاني باب الدعوة والبينة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه متفق عليه وللبيهقي بإسناد صحيح البينة على المدعي واليمين على من أنكر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف رواه البخاري وعن ابي امامه الحارثي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه فقال له رجل وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وان كان قضيبا من اراد
kon mbokk yi ci bunt bi ñuy ubbi baabu da'wa wal bayyinaat mooy buntu woote woo àq bi maa ko moom ak preuve yi nga xam ne moom la ñu war a indi ani ibnu abbas radiallahu anhuma an nabia sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qaal yeneen ci bi ne daana wax law yu'ta an-nas bi da'waahum bu doon nit ñi dañ leen di joxe ci seen woote woo la la da an-nas bi bi dimaa ar-rijaal wa amwaaluhum la ada an-nas dimaa ar-rijaal wa amwaaluhum bu doon lu way woote woo ñu jox ko ko da ngay gis ko woote woo deretu nit ñi ak la nga xam ne mooy seeni alal walakin lyamini ala muddaa alayhi waaye waat dañ koy jox ka nga xamee ne nii dañoo woote jëme ci moom ay aq muttafaqun alayhi walil bayhaqi bi isnaadin saxiix albayinatu ala almuddai walyamin ala man ankara donc ñaari xadis yi li muy jàngale rek mooy rasul sallallahu alayhi wa sallam dane nit ñi bu doon ku ñëw rek tuumaal nit ne moo jël sama nangam wala daf ma yoral nangam ñu atte ko delloo ko ak xam mu ne kon nit ñi da ngay gis da ngay gis ko woote woo jël deretu nit ay tëb indi rek ne ah diw moo rey sama baay wala moo rey sama nangam wala diw moo dagg sama loxo wala diw moo dagg sama nopp pour ñu tuur deretam wala diw moo jël sama alal. moo tax mu ne kon nit ñi daan jëf deretu nit ñi ak alal lu ñu ci lu dul àq waaye rasul sallallahu alayhi wasallam ne képp koo xamee ne ni dañu laa tuumaal te tuumaal ba amul benn preuve dañ lay waatloo ci yàlla soo waatee ci yàlla ne lii ñu la tuumaal defuloo ko su boobaa kenn mënatu laa topp su boobaa kenn mënatu laa topp mooy hadis bi ci tege rek mooy rasulullah sallam ne heure bu ñuy atte ki nga xam ne dafa jiiñaate fokk mu indi ay preuve waaye képp ku ñu jiiñ nga bañ fokk nga waat ci yàlla amma waa ji mu nanguwu la waat ah su boobaa da ngay gis ne moom dañ koy topp loolu amma nag ba waatee ci yàlla ne moom lii ñu ko tuumal defu ko ah su boobaa loolu moom dañ koy bàyyi digganteem ak boroomam bu dee xadisu ci topp xadisu abi hurayra radiallahu taala anhu an nabia salaa sallam arada ala qawmin al yamin fa asra'u yonent bi gaaral na ay nit ci ak waat ñu jëkkante fa amara fa amara an yushama baynahum fi al yamin yonent bi daa di digle ñu daa di lutri seen diggante ca waat ga ayyuhum yahlif ana kan ci ñoom moom mooy doon koy waat rawahul buxaari buxaari solo na ko bokk bu dee xadiye bi bokk na lu ci borom xam-xam yi wax ay gaay dañoo ñëw di xëccoo benn mbir salan tey waa ji ñëw ne ah lii kat sama dàll la keneen ki ne ko non sama dàll la léegi ñu jàppante ci kenn ci ñoom amul preuve rasul sallallahu alayhi wasallam ne kon ana kan ci yéen mooy nangoo waat ci yàlla féetewoo dàll yi ku nekk na may waat ku ne na man may waat yonent bi alei salaam ne ko nañ leen lotari buñ leen lotari koo xam ne nii moo gañe ci lotari bi ñu bàyyi ko mu waat su nangoo waat ci yàlla ne maa moom da da dàll yi ñu bàyyee ko ak i dàllam te loolu it mbokk loterie mooy tànnloo yàlla ci lislaam wala tax islaam kaa yu bëri su ca jaaxlee dañuy loterie gis ngeen a rasul sallallahu alayhi wasallam amoon na ay soxna su ma saan dem di tukki bu yóbboo faatu Mariam na lu tax mu koy yóbbu kumba de nangam da daan wax na ku nekk indi bant ñu indi bant ñu loterie ku bantam génn ñoo xam ne kii yàlla ko tànn gis ngeen mu daal di jeex loolu la yonent bi alayhi salaam jëfe ci atte bi amma bu dee xadis bi ñu mujj a jël mooy xadis yi abi umama naam radiyallahu anhu anna rasula sallallahu alayhi wa sallam qaal man iqtataa xaqa imriin muslim ku dagg aqu mbokkum julitam bi yaminihi ca waat gam waat faqad awjaba allahu lahu naar ku mel ni day yàlla farataal na ci moom sawara wa xarama alayhi aljanna araamal na ci moom ajjana fa qaala lahu rajul benn góor jóg na ko wa in kaana shay'an yasiran ya rasulallah ah même bu dee ne mbir la mu tuuti yow mi yàlla yónni qaala wa in kaana qadiban min arak mu ne même bu doon benn xànc la ci garab gi ñuy wax arak mooy sotti yi ñuy jaay fee ci buntu jàkka ja rawahu muslim muslim solo na xadis boobee mbokk bokk na loo xam ni nit ñi defuñu ko benn problème waaye tey jii doomu aadama yi ak a bëri lu ñuy waat waat ngir jël mbir moo xam ne yeewoo ko rasul sallallahu alayhi wasallam nag ne képp koo xam ne waat na ba jël aqu jàmbur imma da ngaa waat tuumaal ko wala da nga koo yoral waat pour pour génn ci bañ koo fay mu ne day yàlla dogal na ne yow safara mooy sa wàccuwaay yi ca doo tàbbi àjjana ndax kooku dafa def lu grave li grave mooy jël na àqu julitam ba pare tooñ na boroomam ca waat mbokk ci yàlla mooy maa ngi seede ne yàlla seede ne ne lii ma wax muy dëgg yaa ngi tuumal yàlla jalla waala looloo tax ci bakkaar yi gën a garaaw ci la bokk yàlla araamal na ci moom safara àjjana ca safara mooy wàccuwaayam doonte ne ne lii am na yenn ci ay pas-pas yoo xam ne fa lillahi alhamdu sax bariwul ci sunuy jamono yi tey lu tal ni la ñuy tuddee ay mu'tazila ak i xawaarij xadis yu mel nii la ñuy jàpp ne ki def kabair ci lislaam safara la jëm ndax yonente bi sallam ne ne yàlla faratal ne ne safara la jëm yàlla araamal na ci mu àjjana waaye mbokk xam leen ne bépp tëkku bu yàlla tëkku wala yonent bi tëkkoo dafa am luñ ci luñ koy tënk daañ ko tënk ci ndax waa ji tuubul avant muy dee daañ ko tënk ndax waa ji deful yeneen jëf yu gën a kawe jëf jooju ci lu baax avant muy dee masalan suñu borom nee na ku def lii àjjana la jëm ku def lii safara la jëm waa ji def na loo xam ne ku ko def àjjana la jëm def na loo xam ne ku ko def safara la jëm loolu mooy atte bi am yowmal qiyaama loolee kon moo tax ba def bakkaar bu doomu aadama def bakkaar du tax mukk ñu dogu ne safara la jëm mi ngi mel ni aj makka rasul sallallahu alayhi wasallam nee ne koo xam ne aj na makka yàlla day koy fay ajjana ndax dina tax ñu ne ko aj makka rek ajjana la jëm déedéet kon yooyu yépp ay mbir la yoo xam ne suñ demee suñu boroom indi nga not yu la yóbbu àjjana not yu la yóbbu sawara su boobaa la borom bi di attee ana lan moo gën a not ci say mbir même bu doon gën naa not dem safara ja it des na njëggalu yar la ak yërmande yàlla bu dee loolu dabantal na la itamit daf da ngay da ngay gis ne loolu mën na la musal loolu ala kulli xaal dañ koy wax au passage waaye it di fàttali wat yaxu xadis bi képp koo xam ne yaa ngi jël sa àq julit ak lu mën a doon benn waaye jóg na ci mbooloo mi ne ko même bu dee lu tuuti même bu dee lu tuuti cent franc cent franc cinquante franc ak lu mu mën a doon ak lu mu tuuti tuuti yeneen ci bàyyi sam ne même bu doon socc benn xànc boo fekk branche bi nga xëcc ko noonu rek ci àqu jàmbur bu dee ne loolu dañu laa wax nga boole waat ci ne lii sa àq la yeneen ci bàyyi salaam mu ne yàlla araamal na ci yow aljanna lii kon mbokk mooy bunt yi nga xam ne jot nañ ko jël di ñaan suñu borom jalla wa ala yàlla nañu musal ci lépp luy tax muy araamal ci ñun ajjana yàlla nañu musal ci lépp luy tax safara dinañ suñu wàccuwaay waaye yàlla nañu yombalal lu ñuy tàbbale firdawsil aala wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain waaw ndax li xew mo li ñuy wax léeg-léeg nit faatu ñu ne kum yoral bor na ñëw ci diw loolu mbokk firiwul ni képp ku ñëw ne yoraloon na ma rek ñu jox ko fokk boo ñëw di wax ne yoraloon na ma da nga indi preuve yoo xam ne yoraloon na la amma bu dee amoo benn preuve bu wane yoraloon na la ña nga xam ne ñooy waa néew ba am nañ droit bañ laa fay ca dara du leen ca fekk amma nag bu dee da ngaa indi preuve su boobaa amuñu droit di miiras lu dul dañoo jëkk a fay bor ya ba bor ya jeex wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam ala kulli xaal suñu borom yàlla ci yërmandeem ak bëgg ak maandu te moo tax mu daan seetaan sunu maam yi ñuy def loo xam ne sharia xamu ko waaye nag yàlla daan leen ca fekk sunu maam yi buñ daan waat luñ daan def dañ daan tàngal lu mel ne benn illeer ñu tàngal ko ci sawara ba mu xonq curu waa ji ñëw daa ji ne man de maa ngi seede ne lii may wax dëgg la ñu jël illeer bi mu jël teg ci làmmiñam ca bu dee wax ne dëgg du lakk loolu yërmaande gu yàlla daan def ci ñoom la am na ci ñoo xam ne niñ daan waate dañ daan jël ay saabu dugal ci cin baxal ko ba mu bax xam nga daanaka ma goudron ñoo yem sànni ci benn pusu su ko defee waa ji ñëw maa ngi seede ne nangam ji maa ko moom kii sama doom la wala lii sama alal la jël seen loxo dugal ci biir génn pusa bi suñu waxee dëgg rek da ngay gis ne duñu lakk amma boo dégg ñu naan diw dafa waat lakk loolu lu ci bëri mi ngi daan am ci loolu mooy boo fenee moom daanaka loo ko ñemee teg sax waaye boo ko teg di lakk mi ngi noonu mais loolu lislaam xamu ko islaam li mu xam man kaana xaalifan falyaxlif billah aw liyasmut islam danaan kuy waat ci yàlla lay waat mais beneen façon waat loolee moom da ngay gis ne l'islam xamu ko bokk na it ci loo xam ne ñuy jar a bàyyi xel la mooy xadis bi ñu mujj a jàng rasul salaa sallam di wax naan ki nga xam ne dafay waat ci yàlla yàlla araamal na ci moom sawara ajjana mbokk bari na sunu maam yi lu ñu daan seetlu lu ñu daan seetlu amul kenn ko daan waat ci yàlla ca ñu xam ne day fen lu dul balaa yàgg natt bu rëy dal ci kawam moo tax ñu naan diw day dafa waat dafa lakk lu tax loolu moo dina ne nit ki taxaw ci kanamu mbooloo mi fen fen ba pare waat ci turu yàlla ñi ko xam balaa yàgg catastrophe yi bëri dana dal ci kawam avant àllaaxira bu ko yàlla jéggalul wallahu aalam am bismillah naam waaleykum salaam dafa ñëw ci mbooloo mi mu ne imaam bi doyu ko ndax mën na julli ci gannaawu imaamam la nga xam ne mooy julli boppam ala kulli xaal lan mooy tax ba imaam du la doy almuhim xëy na loolu day gudd waaye daal bu dee ne la nga xam ne mooy jullig imaam googee doy la li nga mën a def mooy bàyyi mu bañ laa bañ a julli ci gannaawam ñàkk julli ci gannaawam dana jur fitna su boobaa jullil ci gannaawam waaye mu nekk ak naafila soo paree nga julli sa jullig bopp loolu la yonent bi alayhi salaam digaloon lenn ci sahaaba da ngeen dem ba fekk ay ay amir yoo xam ne du ñu julli ca waxtu wa ñu ne ko boobaa loolu ñuy digal mu ne dem leen ànd ak ñoom mu nekk ci yéen naafila su ngeen pare yéen ngeen julli ca waxtu wa loolee nekk seen farata mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam donte ne ne nañu xam ne lu bëri ci nit ñi ñi ngi tuumaalante ci loo xam ne teguñu ko dara jullee naa ci benn jàkk sore wu ñu fii bi ma génnee benn jeune dab ma dama imaam gisoo ko taxawoon ca gannaaw pote bee ma ne ko ah kay mu ne ma ci imaam yi la bokk imaam bi jiite bu jiite nee na moom doyu ko du julli ci gannaawam ndax nee na day pays bi kay it nee na moom it bu kee jiitee du julli ci gannaawam ndax nee na fatiha bi leerul yooyu ci loo xam ne wallaay sori wuñu fi ala kulli xaal daal nañu xam ne lay tax ñu bañ a julli ci gannaaw nit lu xaw a compliqué la wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaleykum salaam naam ala kulli xaal mooy lu suñu maam yi doon def rek ci li ma lay wax aada la bu suñu maam yi doon def mbir la boo xam ne li ci borom xam-xam yi wax bu dee waa ji bi muy waat mi ngi jublu kaddu gu yàlla jalla wa ala su boobaa dañ naan loolee mu def nekkul loo xam ne dañ koy tudde shirk ndax kaddu gu yàlla alquranul karim kaddu gu yàlla la amma bu dee ne def ci jublu ay këyit ca loolu jàpp ma juri dëkk ci jublu loolu moom nekkul lu baax doonte ne ne loolu sunu maam yi ñoo ko doon def ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala jéggal leen waaye nekkul woon ci doxalinu sahabatul kiram ñu ne dañuy waat indi alquran teg ko pour waat ci kaw alquran mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waa ñu mujj ci mbokk bi rek ngeen jéggal waaw waaw bismillah waaw bismillah waaw alan ah ah dégg waaw loo waaw waaw waaw bisimilah waaw. ala kulli xaal mën yi borom xam-xam yi dañ ci am ixtilaaf am na ñu ne sobe la loolu mooy li gën a siiw ci téere yi ñuy jàng fii am na ñu ne du sobe ca loolu it moo ëpp ay tegtal mi ngi noonu amma zihaar jigéen loole la gën a not ci borom xam-xam yi dañ ne zihaar góor a koy def mais jigéen amul zihaar loolee bu ko defee wax na wax bu bon wax na wax bu ñaaw waaye benn atte du aju ci kaw loolu lu tax mooy moom du moom mooy gàddu la nga xam ne moom mooy kilifteefu sëy bi ba naan jëkkëram yemale naa la ak sama baay wala yemale naa la ak sama nangam su ko waxee wax na wax ju bon wax ju ñaaw amma bu dee jëkkër ji moo ko wax moom su boobaa jëkkër ji du daggan mu ànd ak moom abadan lu dul dafa goreel jaam wala mu woor ñaari weer yu tegaloo wallahu subhanahu wa taala alam ñaar ñi dañuy yëkkati loo seen loxo moo tax ma ne ñu may ko rek bismillah ñu mujj ci moom waaw ay salaam dafa taxaw mal dégg li nga wax de waaw waaw ah waaw loolu de mooy mooy mooy liñ doon jàng ala kulli xaal moom la ñu wax ne mooy fitna bi am ci axiru zaman nañu xam ne loolu ci mandarga yi naafiq yi ci la bokk mooy di diggante ba pare doo ko matal abdullah ibnu omar bi muy demee bay sukuraat woo nañ njabootam mu ne leen diw dey nañ ko may sama doom diw ndax dafa dajeeg man bi mu waxee wax ji dem naa ba wax ji mu wax dal gàntu lu ma ko mais dama bañ mu jàpp ne dama ko nangul may dee fekk la ma waxoon defuma ko kon bu ma deeyee nañ ko may sama doom diw ca loolu mbokk mooy ñi yeneen ci bali salaam yaroon waaye nañu xam ne mbokk julit lépp loo xamee ni nii mënuloo ko wala fas yéene woo ko def wóoroo ko engagé jullit lépp lu mu engagé ne dinaa ko def lenn dong mooy tax du ko def mooy ngant bu jóge ci yàlla jalla waala amma di déggaate rek di sànni di déggaate rek di sànni comme ñi ko nit tey di defee rawatina sama mbokk ouvrier yi mbokk loolee musiba la boo xam ne dafay yàq diine jàmbur yal na yàlla sàmmal ñu suñuy diine sàmmal ñu suñuy kàddu rafetal suñuy jëf wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain